maa ngi ziar. Djibi ça va. mais kontaan. Djij. Eh, eh, eh, mon frère yu ko ngoog naa la. nice. naka waar. a waay. sant bu baax mais kontaan. a va. salaamaaleykum mon frère nee na. ça va bien. lam fa mais dégguma keroog ñaanu ñoom bébé baax yarax ba léegi. kaamil ba. waaw dëgg la c'est vrai xamee naa la waaw. na nga def wala wut dara ko wax de. naka ci gis naa la gis de. egg ci biir naka la gën. waaye waaye waaw naka mu nice. yarul am na sutura. yàlla yàlla. Pape Diop ah Pape Diop excellent na xale bu yaru bi wala mu baax wax man maa ngi ci caay ji jëm la. ah. alhamdulilah après après nga teg seen weer bi ça va bien. waaw bëgg nañ incha allah xam naa ne Ndiaye mën nga faa dégg maa la mag de waaye maa la gën moom doo ko fa dégg. waaw seen kër syndicat ñoo den waaye booba nekkoon di sàcc mango tey ñi nga mel doo ko mel. seen kër syndicat doo ko dox

te Moustapha euh, doomu aadama yee ko sonal saa su saa su xëyee rek mi ngi dox ci soxlaay doomu aadama donc ñu ngi koy ñaanal sëy bi yàlla na ko yàlla barkeel ngeen am si njaboot bu barkeel ci barke Seydina jërëjëf jërëjëf merci ah xam naa ne kontaan nañ pap yàlla yàlla nga àgg ni yoon amiin yoon sa bopp loolu la day tuub bu doon saa ma joxee baaraam nag kuñ lay doon waaye saw jini seen kër ak syndicat bi yooyu bu ko nekkoon di sàcc mango tey doo dégg man ngaa dégg maalo la waaye maalo gën doo ko fa dégg de. allo nit ñi